def nii ñaari yëf naa ko jox benn mooy bu ñu jëloon gouvernement bi jox leen ko ñu di jox ko lii la jox fukki yoon bàyyi leen fi fukki at duñu am lii dana jaxasoo seen bopp ba dootuñ ko mën a yi képp kuñ ko laxas nga dof hmm? caabi bunt yi képp kuñ ko jox benn doo ko attan ñaareel ba du ko jaawale bu bunt yi war a tëju tëju yi war a du ubbeeku dëgg yàlla macha allah macha allah kooku benn côté bi la liggéey la boo xam ne gàcce ngaalaama ndax kii euh, Sénégal dox bi muy dox mayu ko technologie bu mën defee lii waaw dimbale sëñ bi ci boppam dafa mel ni da cee def dafa mel ni da koo liggéey rek teg ko ci sa kaw bopp bi mel ni yaa ko yenu fekk moo ko téye allah waaye it li muy rëy rëy waa maison du parti bu yóbboo ñu préparé fu taxu fa jëm fa jëm tali yi ko wër yépp doon kii bala mu dem quelques années ñu ne xat na dañoo def saalu àjjuma ak saalu bis yi ci des yow xam nga ne samedi ak dimanche foo jaar tosbaar ci jumaa ji nga koy bind samedi ak ak bis yi feet yeeg weeru koor yëpp it la même chose waaw nag waaw waaye nag it liñ ci woon ne doy na te mooy ku man da ngay mën ci lépp sëñ bi li mu mën wane na ko ci lii waaye mënutoon a ñàkk a nekk nag mënutoon ñàkk nekk ab liggéeyam di nekk loo xam ne day foy-foy wala ñu am ca dara lañuy xeet mënut a nekk nga nit bu la sutee da lay ëpp daal gën laa gudd mbubb gën laa gudd ay loxo ëpp la tubay ëpp la mbaxat ëpp la leneen ëpp la lépp waaye ponkar mu toll nii dere tànk bliir lu dem waaw lii yëfi ponkal la du lu ndaw yàlla nag moo la ci dimbale waaye kon it ñun ñu war la cee ndokkale ndax ki la tànn ci kaw la la tànne woon nga door a wàcc ci suuf def li nga xam ne macha allah lii ku ko gis dina bég koy yow bégoon nga yàlla na nga gën a bég yàlla nga gën a bég yàlla nga fi gën a yàgg te gën a liggéeyal sëñ bi waaw jumaa mag jooju nga xam ne mooy yaatal ji yàlla nga ko liggéey yaa waxuma ji ci ba maison du parti yàlla nga joxe caabi waaw maison du parti ak li ci diggante bi ñooy ñàkk nañ maa ko wax nañ ko bind xool ko ci jumaa ji fii sëñ ubbi woon rek ak ji fi ne tey est mën nañ leen tëkk rek la nga xam ne moo doon bayal ba léegi jumaal ba ca boppam mu ngi ci biir jumaa ci foofu nga koy natt te fii Ndakaaru la mooy capitale Sénégal te lu bon juróom-ñaari million fi xëy di fi fanaan kon nag juróom-ñaari million yooyu la ciy murit ak la jullit te bëgg place bu sell bu amul dara lu araam ñu di fa yàlla xajuñ fi xajuñ fi nawet xajuñ fi noor xajuñ fi bëccëg xajuñ fi guddi li ma gis da ngeen mujj def ay projecteur waaw ba fi mel ni dootul am benn koñ boo xam ne mètre la nam na fa xaj waaw nit ñi di nekk doo xam ne minute trois heures du matin lépp incha allah taala waaw waaw baax a baax baax a baax it di dellu si rek yoo xam ne lii ki fi dugg rek war nga wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin nag mooy li murid di wax jërëjëf sëñ Tuubaa benn bi rek la du ñaar boo ci wax rek wax nga bi ci des waaw boo ci wax rek wax nga bi ci des waaw ndax ñun ba ñuy jàngal ñuy xale yu tuuti ñu ñuy jàngal dañuy alhamdu mboolem xaajcent ñeent lillaay ñeel la yàlla ñu ne yan xeeti cant la ñu ne bi yàlla sant boppam ak bi sant euh, jaamam ak bi ko jaamam sant ak bi jaam bi sant morom ñi kon boo nee jërëjëfe sëñ baax wax nga alhamdulilah rabbil alamin bu leen ci nax ngeen wax wax leen ma dégg <laughs> <laughs> waaw bay mboole ñi nga xam ne dugg nañ ci seen loxo te bari nañ lool te ñi gën a bari la kenn xamu leen te bëgguñ ko leen xam te loolu la waaj a ba mu ñëwee bu waxoon taalibe yi nañ defar jàkka ñu ñëw ñu dajale ba mu ñëwee ñu dajale mu nekk quatre cent millions ñu prépare gars yi discours ba pare mu ñëw mu war a discours na mooy leen ñaar rekk fi ne de ñi def te xam lu tax ñu def ñu jaruñoo sant ndax ko xam li tax nga def jaroo sant bi ci des mooy ñi def te xamuñ li tax ñu def te ku def te xamul tax nga def jaruloo sant wasalaam wax ja bi dajal nañ ko ñetti at ma wax ci genn wàllu minute mais ñaare fi ne de xam li tax mu def ak te ñaar ñooñu kenn jaru cee sant waaye loolu mënuñ ko wax ci liggéey bi nga xam li tax ñu def wallaay ay ñoo sant te bëgguñ ko leen sant ñi xamul li tax ñu def it jërë sant waaye yow jar ngaa sant jar ngaa sant kat parce que bañ la ko joxee lépp ci nit ñi dañoo ne du sotti buñ ko doon enregistré ay magnétophone def fii ba mu fees du sotti rek ngay dégg sotti rek moo fi doon jub de waaw mais ñi doon wax ne dana sotti itam dañoo foog ne dana sotti ci ñu gis rek lu mel ni lañ daan gis waaye lii ñu gis amul kenn ku koy gis te doo ko yéem parce que bi mu yelloo rek lañ koy tëkkale te mooy bu yonent bi amul beneen ku ne la woon ca bee yeewoo ci biir da foog ne demoo fenn ah ku ne la fii yeewoo fee da ngay foog ne demoo fenn te loolu mooy ca sànni macha allah macha allah yàlla may na ci ndam. yàlla yàlla yàgg may ndam waaw sonn nga feebar nga ñàkk ngaa nelaw façon bune ci àddina waaw laxas nañ la ci ay këyit ci ci façon këyit bu ne technique ak këyitu administratif ak ci àddina waaw wala dëgg yàlla wax dëgg yàlla euh, li liir bu ko dajoon it béjaatu fekk aw jotagul wax dëgg yàlla nag bis bu dee benn te la nga war a waxoo ko dootoo ko wax moom macha allah gàcce ngaalaama gàcce ngaalaama waaw te it wóor na ma sa alali bopp yoo xam ni fa nga ko jëlee yow dong ko xam ak yàlla jël nga ko def ko fii dolli ko ci lañ la joxoon et fi moom buñ la joxoon soble it nga sa laaju bopp dagg ko boole ko soble si waaw fuñ la joxee soble laaju bàkk yu fay dugg na ci biir cin la ba mosoo nangu sa dara fekkee liggéey bi taxaw te nag dañ koy xeet de mais bu leen fàtte ne jumaa ji jur ji tabax nañ ko ñeent fukki at da nga accéléré de da nga accéléré de da ju ñu fondement bi ko jullee daaw la am ci réew dangay ngay dégg rek ne mi ngi jullee jumaa ji nga xam ne sama maam bàyyee ma ko rëddul waaye macha allah ñi ko rëdd ñoo ko tabax mu pare ñu jullee ko te dana yokk lislaam bi doole mu ngi ci dugg dëkk bi dana julliloo ñu daawul julli dana gëj da julliloo ñu daa julli dana soppi quartier bi quartier bu ñaaw ni dana rafet par force lu rafetee nii lu ñaaw mënu ko wër li ñaaw lépp dana mel lii mbaa mu lii affaire bi da koy yóbbaale wax leen ko ci Touba rek man Touba dem naa fa 1959 fekk ko sama bàyyi sëñ Fall booba dëkk Touba ku dul dëkkul ci néegu ñax abu fa lu mooy Baye Fallou ak ak Baye Gaynde Fall ak Seex boobu mbedd yu amul fa oto mënu dugg ay mbedd yu xat yu tuuti la la fa dëkkoon jooju jamono ëppul ñetti téeméeri waaye jumaa ja moom paree rek la defar lépp xoolal léegi côté bu ne rek dafa ne ci ay kilomètres lii itam sensum Ndakaaru la parce que guddi yi waa kër seytaane daan misik yëpp danañ ko fanaan xasaayit te xasaayit day làq lëndëm di dindi ñàkk wërsëg semence bi day dañ wërsëg bi day bëri lii rek la xaar xale yi danañ dégg loo xam ne moo dàq misik xale bi danañ xam ne xasaayit yi moo dàq misik danañ ko déglu ñu teg leen musique ñu toj kii ba machine ba xam ne bi baax mooy bi jógee aras malaaka yi di ko woy ba mu yegg si fii licence la bu rëy ci dëkk bi ki nga xam ne it moom la sëñ bi tànnal boppam sëñ bi kum tànn kenn lu mel ni yow te mooy tur mu muntaxaa mooy kim tànnal boppam bàyyi ko kenn nga xam ne bañ tànnee di tànn di tànn bër na lii la mbaax yem mu ñëw moom tànnal ca boppam kon looloy muntaxaa mooy tànneefu tànneef yi loolu bu ci français moom la ñuy wax le joyau de la couronne sëñ Mountakha bu doon sëñ Tuubaa nekkoon ah, ah, couronne c'est le joyau de la couronne ndax kat moom du suti sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa la surtout sëñ Tuubaa nag mën naa bari waaye mënta ñàkk a wuute te yàlla ci moom moo wax ne wa man lam yaj'al llaahu min nuurin fa maa lahu min nuur ku yàlla jotug leer doo am leer lamp yëpp a mën a tàkk waaye yiñ poose rek ñoom ngay contact rek ñu génne leer suñ mu taxaa mii du xalifa sëñ Touba sëñ Touba moom sëñ Touba ci boppam jëmmam la deretam la xelam la alaatam la xam nga murid yu bari foog ne xam nañ sëñ Muntaxa taxawuñ ko ñun ñi nga xam ne booy seet da ngay foog ne ñun sore nañ ko ñun wóor nañu ne day si day sédd yàpp yàpp wata boor bi ci dëkk ci kër gi moom li muy añee mooy cere joo xam ne ndox a xorom rek lañ ca sotti mu mos ca naan ndoxam te bàyyi fi yàpp wata bor tu moo ko moom loolu nag ku sëñ Tuubaa newul ci yow doo ko mën parce que ñam wu neex dafa bëri doole boo ko ëppee doole rek yow ku bëri doole moo tax yàlla na fi yàgg te wér te wàcc xéewal gi keroog wax naa ko ca kër suñu Abdou Karim ca Ndindi ma ne leen ba fii ñu toog tawagul sëñ bi nag dugg na muy sëñ mu Muntaxa balaa génn dina taw yuur yuur ba ngeen naan yàlla na yàlla ji arrêté seet leen nag léegi wax ngeen arrêté wala déet bu taxaloon nag moom ren benn toq ndox duñ ko gis xam ne laax ki koy lekkee kook ak ki koy lekke mbattu duñ bokk ni ñuy giixee ane ab laax ku jox kook muy muy mos ci bi kii ñu jox ko mbattu mu di ko lekkee laax bi bu giix jotee duñ bokk ni ñuy giixee ki lekkee kook moom as ngéex rek as ngéex rek lay géex ñoo wax dëgg yàlla lii nga ñu defal du kook de duñ ko lekkee kook laax bii nga ñu tegal duñ ko lekkee kook te lu mbattu bari bari du ko jeexal kon nag ñu dellu lépp ci li ñu waxoon léegi bu ko defee ñu bokk xaar ngénte la ndax ngénte loo xam ni sëñ Muntaxa mooy tudd si te Tuubaa kenn du des waaw Kawlax kenn des Tiwaawan kenn du des Njaasaan kenn des ba Sénégal daj waawaw ba canaba ba jaamal waaw kon loolu kullu ngénte benn ngénte la kullu ngénte bépp ngénte bu mosajut boloo boobu ngénte ngénte lii mat nala la kon nag mi ngi noonu ñu bàyyi la nga pare sa ngénte suñu ngénte waaw suñu ngénte kay dëgg la suñu ngénte waaye nag ba tey nag ba tey nag wax dëgg yàlla nag dëgg yàlla wax dëgg yàlla macha allah waaw yow mi nga xam ne ah bu la neexee ñu tuddee la ci liir bi gynécologue bi tax doom ju juddu hmm? ba pare mu jënd bersu ak la ci aju waaw ba pare indi laax yu doy ak beñe yu doy dëgg dëgg dëgg dëgg bu ñu yox suñu ngénte dinañ la seen ngénte suñu ngénte moom dafa baax waaye dafa am ñaar yu mu wax ba ñett loo xam ne lii lu may lu may dëggal la bala ma ko nuyu bala ma ko sargal bala ma ko tatagal ndaxte ñaar yooyu yëpp nuyu beeg sargal bi ak dalal ko <clears throat> daanaka mën na koo def boppam fii ndax moom joto jotom bariwul ñu ko yittewoo bari na fu mu dem fu ne ñëwee fi nii mu fi ñëwee ñor na ko ñi ko bëgg a gis wala ma ni ñëpp ko bëgg a gis ñëpp bëgg a taataan tamit ay waxtaanam <clears throat> waaye tey ku ne xam na ni bësub dimanche la ku ne xam sëriñ toogal déglu ma fi ah waaw dawal gaaw bésub dimanche la te dimanche jii ñu nekk ku ne xam na ni suba la altine te moom kilifa la kilifa la bu diine waaye kilifa àddina la ndax homme d'affaires la te bu du bu ndaw bu mag la ci ñi gën a mag ci réew mi la bokk <clears throat> bu bàyyee occupation bi ñëw fii te ku gis ni muy waxee xam ni amul ci yàkkamte dara xam naa tamit lu wér ni li mu bëgg wax lépp li ne ci xolam mënu ko génne malgré que moom orateur hors pair la c'est un excellent communicateur waaye biir na ma ni li ne ci xol bi bu doon wax ba suba yit li mu bëgg a wax lépp du ko wax feeñ na ci ay waxam feeñ na tamit ci ay waxam cofeel gu mu am particulièrement ci sëriñ bi te loolu murit yëpp boose nañ boole nañ koo xam ci moom mu jël sëriñ bi kennal ko waaye dafa mel ni dafa am lu mu jàng wala lu mu mos ci sëriñ bi mosin woo xam ne bi moo ko indil daanaka àllam ji mu nekk ci sëriñ bi ndax buy wax ci sëriñ bi dangay xam ni kii ci àll ne ni mu ko imagé rek kuy lekk laax di ko lekkee koog ak mbàttu bokkut moom dafa dafa am lu mu tibb ci sëriñ bi te it nag du léegi du léegi de yàgg na de ndax sëñ Ahmed bi ma koy xam mi ngi bëgg a yàgg yàgg na lool am nañu relation fii daje nañu biti réew bu dul benn du ñaar ci ay ruq yoo xam ne yii cuune du fa dem muy dox ay mission yoo xam ni hautement secret secrète et hautement stratégique bu toogee nii may wax loolu te du dëgg xam nga daf may jéppi waaye moom du ma jéppi xam na li ma koy wax ni c'est la c'est la c'est réalité alam jii mu nekk nag ci sëriñ bi muy àllu ju dëggu li lay won ni dëgg la ci moom lii mu fi wax wax na fi ay wax ñetti wax yu nekk yoo xam ne yëpp sëriñ bee ko waxal boppam ndax nit ñi dañu bu ñu jànget <coughs> bariwuñu xam-xam nit dina jàng te du am xam-xam xam-xam bu set moom la ñuy wax xam-xamu yàlla xam-xamu yàlla jàng du ko may ndimbal mooy maye xam-xamu yàlla waaye du jàng nit dina jàng xam lu bari waaye xam-xam ba day doon xam-xam superficiel maanaam day doon xam-xamu àddina te àddina am na solo amut solo waaye xam-xamu suñu boroom kenn du ko jàng ndimbalu yàlla lay doon lu la yàlla di nàmpal lay doon moo la koy nàmpalal boppam E, ca na mu ko sobe ca coobareem ya ak dogalam ya waaye moom nii muy waxee ak alji mu àndal ci sëriñ bi di wax wax yi muy wax ku bariwut xam-xam da ngay daal question alhamdulilah ak jërëjëf sëriñ tubaab benn la ku amul xam-xamu yàlla rek xamloo ko sëriñ bi moo woo sëñ Matar Bintaloo xëy rek ni ko maxtaar mu ne ko mu ni ko demal ci fere yi ni leen nu sant yàlla sëñ Tuubaa nag bu ne fere yi génne ñu ci ñun ñii booba ma ngay wax ak maam Cerno Birahim ma ngay wax ak maam Cheikh euh, sëñ Massamba ma ngay wax ak maam Cheikh Anta ma ngay wax ak ponkal yu magu yàlla yooyu nga xam ni kenn xamul lu ñu doon sëñ mataar dem dellu si dem dellu si mu ni ko Maxtaar ana la ma la mu ne ko ah Mbàkke ñoom de am na lu ñu wax leneen mu ne ko maxtaar lan la ñuy wax ma ne leen nañ sant yàlla ñu ciy teg leneen ana la ñu wax mu ne ko mbàkke ñoom de nee nañu am na keneen ku ñuy sant sëriñ bi ànd ak àll daal di koy joxor bi ni ko ana kooku ñuy sant ana keneen ku ñu ci sant ku mu doon mu ne ko yow mii la ñuy sant sëriñ bi ni ko maxtaar mu ne ah, mu ne ko aktaza ni ko maxtaar sant ma sant yàlla la ci ko xam yàlla comme ni ko maxtaar sant ma sant yàlla dëgg la ci ko xam yàlla kon bu ne alhamdulilahi wecc na jërëjëfe sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa wecc na alhamdulilahi moom dafa am ca xam-xamu yàlla boobu <laughs> amul xam-xam bu daw sëriñ <laughs> bi it nag li lay woon li lay woon li lay woon tawféexu doomu aadama mooy xam ko sax jafe na waaye fa nga tollu nga xam ne yow fii nga toll mënatoo ko weesu ci bëgg ak ci gëm ak waxta yàlla tax nga wax lamu doon la nga fa nga tollu rek ndax te nitu yàlla wax fa mu toll jafe na ndax bala ngaa xam di wax ci mbir na mu toll nga dem ba toll na te sëriñ bi tollu fa mu toll jafe na waaye nag am njool boo ko séenee muy dem ak um tungu ne di nga ni keeku gàtt la di ni kële ku njool la te bañ àgg fa moom loolu it ndimbalu sans borom la koo gis ku ne li dogali sans borom yi mel mu nungu ko di ko waxe di ko seede nanga jàpp ni am na ndimbal bul xool nag mbubb yi bul xool mbubb mbubb amul solo mbubb des koy sol di ko summi ndaxte mbubb pour biti la du pour biir mbubb liy ëmb nit ki muy mbubb nii du pour biir pour biti la bari na ku dem ba dugg ci biir ab néegam la muy waajee du ko génne du ko nekkee ci néeg ba boo ko fa fekkee lu woyof la ñu ko diwa ngi lay seet mu ne ko may ma kon bul ko attewoo ci mbubb ya li nga xam ne lii moom la nit ki di attewoo moom ci jëmmi boppam xamul fu mu ne te mënu koo laalit waaye mi ngi ci moom it nag loolu mooy tawfeexu sa borom te loolu ku mu ne ci yow nanga xam ne am nga cetug biir am nga malaanum biir moo xam ni bokkul ak liñ lay gisee nii waaw moom waxam yi mu nekk une constance di tubaab di wax loo xam ne lii du war a ngi ko mukk boo ñëwee rek fa nga koy fekk waaw mu gën a dëgër mooy waxam ju rafet ji nga xam ni dina ko faral di ko wax mu jëm ci maamam ndaxte maamam la sëriñ bi ñi mu maamoo bari ñi mu doomoo bari na sëriñ bi ku baax ku ne yaa ngi ci moom ak foo manti ne koo dégg mu am linkaar walla mu am sikki sàkk ci sëriñ bi yàlla mi nga xam ni moo bindi jaam yi amul ci moom sax cër ak ku manti doon danga di wax jenn wax joo xam ni xam naa ni dang ko jàpp waxu daanukat waaye programme bu mel ni programme mu Serigne Touba nga xam ne ci programme yi gën a rëy yi suñu borom yi la bokk yàlla du ko nëbb xaritam <coughs> ko xam dara lu mu tuuti tuuti ci sa borom programme bii di programme bu Serigne Touba yàlla du la ko nëbb <laughs> ah? yàlla du la ko nëbb ah. bo boo ko xamul nag nag nañ jàpp ni it ah, bokkul da nga bokkul ci réseau bi man ngaa am téléphone man ngaa am puce waaye bu amul crédit amuloo doo bokk doo am réseau <laughs> doo am réseau sëriñ bi nag <clears throat> lii mu wax rek mu ni lépp luñ ko màndargalee da koy xaw a nuru doo gis mukk am njool moo xam ñu ni ma nga ne ñaari meetar la doole ji na lu ne nga jël ta dàllub liir mu sol ko déedéet li mu wax tamit ni ilaa yaxaad allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini du lu yomb bu ñu jàpp ni yàlla may na ma lu mu mun su la may kenn ñu jàpp ni nag lu yomb la déedéet la jafee tax mu wax lool loo xam ne li kenn mënu ko am ku dul moom xam nga lu taxa dayo ba kay maye ak kañu may ak la mu ko may fu mu ne ndaxte ni sëriñ bi ñaane moo lay woon proximité am ak yàlla ndaxte nit lu mu xamut du ko ñaan du ko bëgg sax moo appareil yi nga xam ne dina xew fii fukki at noo koy bëggee te xamagoo nu muy mel jamono du dem mukk di gën a jag mbiru sëriñ bi di di jagade wala mu taxaw fu jamono jëm day jéem a fekki sëriñ bi foofu ndaxte li li àddina yàlla moo ko jël jox sëriñ bi muy possession moo ko moom ah malaka ni dunya wa uxra sama du loolu benn bu bu bu bu bu yemoon ci loolu rek rek rek rek rek rek te loolu rek doy na sëkk sëkk sëkk <coughs> yow xam nga waa ñu ñuy wax quartier quartier xam nga ko juge boo ñu quartier dafay jël deux grammes et demi ci urus deux grammes et demi yooyu lu njëgam réerée du passé cent mille francs mu defar ci ab jaaru di ko jaayee un million d'euros ñu di ko xëccoo di commandé ku nekk naan son bos na na gën a gaaw juróom-benn weer na gën a gaaw juróom-ñaari weer ndax ma gaaw takk jaaru kon xam nga valeur ba nekkul ci li wurus di jar waaye ca ko ko defar loolu nag bu jaadoo ci quartier rek kon nga xam ne ki tax ñuy wax war naa mën war a mën lu cent mille mu jox ko valeur un million d'euros d'euros waaw moo waroon nekk six cent million wala sept cent millions de francs CFA waaw loolu nag dem ab tubaab dong nga ko man kon ku aajo jarta laaj jarta laaj danga fekk suñu mbokk mi ñëw fii te kii du njëkk njëwam mu mel ni sëriñ bi da ko neex lool da ko saf lool mu koy dund moom laa doon wax léegi ma ni ko danga am ndimbalu sa borom ndimbalu sa borom nag mooy li xew wala li am solo nga xam ko loolu mooy li nga xam ni mooy li am solo sa wax ji li koy dëggal <clears throat> bërki démb na ni waxtu wi maa ngi ci sëñ Muntaxa ñuy waxtaan waxtaan wu xóot wu sori mu may waxal fi mu toll ni ma xam àddina ni ma ko xame bugguma ñu xame ni sax ni xame naa noonu àddina nee na xam naa àddina ba mu jeex takk takk takk takk ak li ci biir ak li mu doon nee na looloo tax ma wàcc ko nee na xam gi ma xam àddina ak li ci biir looloo tax ma wàcc ko lii dox ba ñëw fi man bu ma sañoon damay ne fa ma newoon ca sama mag ñu baax ñaak sama kilifa ya ñu yilif ma ma ma wéy ci rek ba ba may ba ba ma fiy jóge di dem ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax cay ñaan yàlla yàlla na sam borom yàggal sa taxawaay yàlla na sam borom yokk gudd fan gi yokk wërsëg gi yokk man gi yàlla na la yàlla defal li nga bëgg loolu rek am solo bëgg gi nga xam ni bëgg nga ko muy sa bëggu bopp yàlla na la ko yàlla defal ci barke borom Tuuba ci barke borom waaw sama xarit sama góor la euh, barke sëriñ Tuuba sunu sëriñ euh, kon euh, sëriñ Mbackiou maa ngi lay nuyu nuyu bu sell di la jox sa wàccuwaay ci ñaar yëf mooy li jiitu mooy sëriñ bi xam ne yaa yor kàddoom fii ci région Ndakaaru gi ak li ko wër lépp euh, te loolu yàgg lool waaye ci li ñu bokk ngay suma mag mhm. euh, te euh, bu doon sëñ Tuubaa ak yonent bi ak ñëpp ñëwuñu mhm. mag googu day am mbax ku ne dafa am foo jóge bokk gu yàgg ju séq ko te lépp rafet mhm. kon maa ngi lay duyu di la siyaare Euh, siyaare bu rëy ak euh, di la gërëmit ndax damay sof euh, samay sama ngërëm ci ngërëmu sëriñ bi ak ay magam yi jiitu woon te xam ne dafa la fekk ak baat bi loolu nag bu ma ko waxee dama cee dugal ñi ànd ak yow ñëpp liggéey bi te ñu bari lool ci région Dakar ñenn ñi di ay bokk ñenn ñi di ay xarit yoo xam ne duma ma tàqalikoo ak ñoom ma teg ci suma xarit bi suma xaritam di suma goro euh, muy Ahmed Khalifa sunu diggante lu yàgg la euh, ci lu ñu seq ci euh, di waxtaan am cofeel fu nu gisante xëy na at yi moom ñàkk naa jot moom itam jotam bariwul waaye loolu lu ko jiitu dañ doon gisante lu bari bëri Ahmed Saloum Dieng mi it ma fi fekk xam ne wëllëre wu mag la te di ku bëgg sëriñ Touba Euh, di kenn nit ci sëñ Cheikh Bachir Abdoul Khadir sama sëriñ sama xarit euh, maa ngi koy siyaare te di ko yóbbante ci sëriñ Bachir moom nga xam ne moom itam mooy sunu kilifa ndax sunuy kilifa yépp dañ ko jox baat gannaaw bi mu nekkee yor baatu sëriñ bi dafa nekkaat sunu kilifa ci kër sëñ Tuubaa gi nga xam ne moom rek lañu am te moom rek lañuy topp ñëw bi mu fi ñëwit euh, du tey waaye am na lu ma xam ci biir jumaa ji te xaw ma ko woon kooku it maa ngi ciy sant yàlla bi ma waxee ma wër ko ah, gis naa ci lu kiimaanu yu kiimaanoo kiimaanu waaye li ma ci résumé te xam ne moom laa wax Samba Diaw mi nga xam ne maa moom a euh, ajjuma gaaw la euh, ndax noo jàngando noo bokk bokk ñooy ànd di diisoo te mu nekk ci sa wet te di liggéey liggéey bu rafet te maa moom suñu liggéey ñu tàmbali woon ko ci kër sëñ Modou Fati Xari lu yàgg ndax kër googu fukki at ak juróom-ñett laa nekk seen porte parole luy ñor rek maa koy nekk te booba ak siw ma fii dama wax ni jumaa ji ku ko wër da ngay eh, di mën a wax ne rek eh, sunu mbër mi jël na drapeau bi muy Cheikh Al waaw jël na drapeau ndax euh, l'islam moom drapeau am mm. euh, Ahmed euh, defe naa ne alquran la ak juma alquma mm. juma mm. mooy l'islam lu wax ji gudd gudd ba am xam-xam tabax juma di ci liggéey loo ci ñoddi yàlla jox la xanaa nga bañ koo def te bañ a dëggal boo ko wéralee <laughs> jarul dem tool lépp lay fekk si lu wér la lii nag caaxaan taxawulu ko lii ah man dem naa fu bari waaye xam naa ni caaxaan defu ko kon nañ santaat yàlla bu baax bi nu yàlla defee ñuy ay jullit ba pare it ci biir jullit ji ñi baax bari na ca ñu jëkk ña ak ñii ak ñeneen ñi ñëw hmm. waaye nag sëñ Touba de moom gëm naa amul fenn loolu man moom laa gëm. kullu taqiyin kullu saxiidin lil jinaan yaqtadir li baltatin min atatin xabita xata idi kama laha bajalta hajat xata idi xulubil anbiya maal malaikati hinda rabbiya wa jamilan daari hinda Touba wa ay duriya ataaya tuuba nawaytu ihya alfurudi wa sunan fi watani tuuba wa fi daari minan aska salaatin minhum jalla bi salaam tutiibu li tuubaaya ma daari salaam tuuba liman ahabba hinda tuuba tuuba liman asluka inda tuuba laata abdullahi xaadimu rasul dunya wa axra xidmatan waay rasul nabiyuna ahmadu laa yubaara man raama hadmahu hawaata baara ahmadu jumlatal baraaya ahmadu madaho bidal xadimu ahmadu inni hala ahmada rabbi ahmadu fadlan wa xawlul xayri inni ahmadu xayru jamiil aalamiina ahmadu hamiduna mahmuduna muhammadu yaqulu abdullahi wa huwa ahmadu xadimu man sumaatu muhammadu aatika aati dawaaman waafaqa ahdaahu yaa xayra abdin faqaqa muhammadin man qultu fiihi baxbaqa wala ali wa sahbi wa kulli wa biqa muhammadin man qultu fiihi baxbaqa walaali wa saxbi wa kulli wa bixa rabbu sama wal ardi rabbul ardi lakka saraftu jërëjëf wa merci merci wa jaajëfati sukuran li xaalixina li sayxina maa hiya al awsaani wa sajani marnuutin dabarnuutin saasarnuutin kafattasiutin xitimirin almurtadal askal musakkalat xaa yaa man bi jeexi fa taxsal xaa Thank you. C'est le cas. baax na baax na